bu ma faatoo bu kenn ñëw di ma jooyal nanu ñaan buur bi rabbana na ma jéggal bu ma faatoo bu kenn ñëw di ma jooyal nanu ñaan buur bi rabbana na ma jéggal bu ma faatoo bu kenn ñëw di ma jooyal nanu ñaan buur bi rabbana na ma jéggal sama bàkkaar yi moytu leen di ma jóoral aka baax waaju sell dem na te wóorul rabbana mi maqamta leen du ko jaaxal du ku nax bu leen fa ñëw di ma sellal rabbana mi maqamta leen du ko jaaxal du ku nax bu leen fa ñëw di ma sellal li ma nekkoon ba xëy ni mes ku mu leerul bu ma sellal wallahi ñaana ma dàqal ku ma tooñoon de maa ngi sàkku sa njéggal di la tuubal di baalu bul ma ko jàppal la ma xiiroon ci tooñ la lépp de nekkul lu ma neexoon rajim yi rekk ma xirtal la ma xiiroon ci tooñ la lépp de nekkul lu ma neexoon rajim yi rekk ma xirtal ku dem ci man la nga mokkal di lu baax tuddu tur wi li ma am dal bañ a sàlloo di dëng mu mel ni ku jeexal sunu buur bii nu ku nekk ko lay jël baña sàlloo di dëgg mu mel ni ku jeexal sunu buur bii nu moom ku nekk ko lay jël ñi fi aw jàll ñépp gën ma bu jël fani fan def ci man ni àddina jeekul bu ñu sëngeem kalaat taxul ba ma yeesal sama teewaay ci dun bi kon bu nu yàggal bu nu booloo gannaaw bu jàll na yellun ku ne toogaat dexar xanaa a ku liggéeyul bu booloo gannaaw bu jàll na yelnul ku ne toogaat di xaar xanaa aaku liggéeyul nanu dooraat liggéey ya tey bañ a te ku faatoot la des ca moo om di ko ñaanal nanu dooraat liggéey ya tey bañ a te ku faatoot la des ca moo om di ko ñaanal jërë ngeen jëf naa ni faw da ngeen jël vidéo yeeg nataal yi lépp di baaxal jërë ngeen jëf xam naa ni faw da ngeen jël vidéo yeeg nataal yi lépp di baaxal di ma seereel yi teg yeneen ya mu àndal te bu boobaa ma fàtte di ñaanal di ma yi teg yeneen ya mu àndal te bu boobaa bu leen ma fàtte di ñaanal sëñ Abdou Khader bu sa cumbuleen moo ko ngir fàtt